jàpp naa ne fi réew mi toll président Macky Sall gàcce la ci moom mu waroon a génn sax di dem fenn ndax fi ñu toll rek moom moo fa dugal réew mi tey jii lépp bloqué na xaalis amul si réew mi baykat yi ah, seen nawet bi baaxul tey mi ngi doog a taw am na ñoo xamante boo demee côté eh, Vélingara sax amatul mboq boo demee côté eh, Doli Euh, côté euh, njaareem googu seen gerte baaxul yaakaar naa ne situation boobu président Macky Sall tey waroon na taxaw si kanamu si euh, askan wi jéggulu leen pare accompagner leen mais du yoon ngay génn réew mi di bandone maanaam askan wi si jafe-jafe yi nga xam moom la ñu nekk pour nga dem di vacances comme président Pape Diop wax na ko incha allah dañ si gën yaata mais ñun daal dañ xam ni population bi nga xamante ñoo faloon Macky Sall ci élection yi passé tey jii li leen Macky Sall fayee yokku dund gi yokku courant bi. tey jii maanaam tëbës gi jàll ñëpp am ay jafe-jafe tey jii mbay mi nag moo stop te ëllëg sàmm yi mooy dee te jàpp naa ne fi nii waroon nañoo mën a jéem a wut xont pour jàppale ko maanaam euh, ñi nga mais amul benn maanaam taxaw boo xamante ni tey nguur gi taxawul na ko maanaam population bi nawet baa ngi nii ñi si loolu kenn xam ko tey jii mbën ma am na courant bi aussi tamit kenn xamul coupure bi tey jii fekkente bàyyi nañ leen fi maanaam dem seen yoon yaakaar naa Sénégal yi tey amuñu maanaam ndey amuñu bàyyi ñi jooy te gis ñu ko leen ndax waaye nag lépp lu ñu dal moo leen te mu ñoom ñoo 这就不是了